Senclic yéen ñi aboné gul abonné leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin jëf. càkk xam ne ah xaw ma ñii yan façon nit lañ ah julli gu gaaw eh, kan kan la. papa Tafa la ñëw na. ah Tafa. waaw baax na waaw baax na. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah sëñ Moustapha. sëñ Abdou. waaw ziar naa nga. ziar naa la delloo ziar. nam naa la. sant yàlla bu baax kay. kañ fi ñëw ñëw naa fi léegi léegi. dëgg la dëgg la maa ngi ñëw wax ne ma dem nga jàkka ja. wax nga dëgg. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax a baax njaboot yi. bisimilah bisimilah mbaa kenn tawatul. macha allah alhamdulilah alhamdulilah. sant yàlla bu baax kay. ana waa kër ga. ñëpp a ngi fa. naka mbokk yi. sant yàlla bu baax. mbaa ñëpp a ngi si jàmm. alhamdulilah kay. arikalla. alhamdulilah alhamdulilah. naka njaboot gi. ñu ngi sant. mbaa kenn woppul. macha allah sarkaal la ko. alhamdulilah alhamdulilah. naka koor gi. waa sant yàlla rek. alhamdulilah ñu ngi ci di góorgóorlu moom. mbaa jàpp leen rek. def suñu kéemtalaay kàttan. alhamdulilah alhamdulilah yàlla baax na alhamdulilah moom bu ñëwee nekk ci rek moom yàggul Moustapha mm-hmm. man xam nga lu ma jaaxal suñu jàkka yi mm-hmm. seen julli gi man xam ma la julli ko gaaw a gaaw ba nga xamante ni ah? mm-hmm. yow man maa ngi dem yàkkamtee ñëw ndoxu si ah, dem balaa may dugg sax imam daanaka benn raaka laa fekk waaye gis nga ma def daa sëlmal ma sëlmal waaw man kay loolu dafay sëlmal rek ma daal di sëlmal waaw ah, dafa raw mu sëlmal ma sëlmal ay papa waaw papa imam bu la rawee ñaari rakk da nga jug motal sa ñaari rakk yi da nga doogaa sëlmal ah man da nga maa jàngal te yow sa baay jàngal ja ki sëñ Abdou sëñ sa doom ji lu mu la wax kat mooy sa loxo bii te nga toog déglu ma sama xarit nga waaye naa la wax dëgg kii dama ko war a